mbokki Leewtoo TV nuyu nañ leen ziar nañ leen balu leen àq si koor gi ah Talla Ndiaye la ba tey ci caméra bi ak Babacar waaye Ousmane ti bi Leewtoo la ak koor gi tey nag ñu ngi ci beneen secteur ak ci beneen ruqu Talla Ndiaye ëndeetil leen keneen rek waaye génnul làmb de loo ci mën a dégg nañ dugg ci biir parce que daa mel ni café Touba lañ fay am na ku may seet de Talla kon kii laa doon seet Youssou Ndour ne na yow laa doon seet gis naa du lool la waxoon Mbaye Dieye Faye ah bëggee naa la. <laughs> re bëggee naa la maa am nga jàmm. sant naa baax. yaa ngi ci biir mën a yéene. te si Balla Gaye Modou Lo. waaw Ama Sène. Lac de Guiers. ñaa Niang ci yooyu lañ di werante nii. kon daal moom fu mu nekk moo gaay ñu ngi ci làmb ji. non tey jii sax tey dafa tombé ak ñuy wax si làmb ji temps yëpp si football bi lañ doon wax sax <laughs> <laughs> tey moom booy bu yabaate bi moo fi ñëw moo tax duma leen wax mbërëm. Ah, ah. bay nit ku baax la affaire bi yëpp euh, bokk ñu ko yaatal quoi. sant yàlla baax alhamdulilah. amel ni moom moo ngi ak yéen fii de. waaye dañuy sonal rek dañuy sonal daal lool sonal nañu lool lool lool. seen digganteeg moom parce que sa waay na mu ngi leen di sonal rek ci làmb ji quoi te mooy loolu. waaw laxale na moom mais borom baax la quand même baax la wax dëgg yàlla doom ndey xam nga. sexaw baa ngi fi kafe gaa ngi fi mburu maa ngi fi chocolat baa ngi fi beurre baa ngi fi mayonnaise baa ngi fi fonde baa ngi fi boo buggee sax ñu defal la omelette. tey ñu seet si Modou mbay mun ne ñu yow yaay jëwriñu gi fii mooy café gi xéewal. waaw fii mooy café gi xéewal moom moom mooy jëwriñ bi day day. yow yaay jëwriñ moom ci jëwriñ yi la bokk. li sakkoor da ngeen koy def. Euh, waaw ça fait dix ñu ngi koy def nag. di ci ànd ak moom tamit euh, di ci dem ci hôpital yi dem ci prison yi. waaw di joxe ndogu fii saa su ne donc moom mu ci dox ay jéego yu am solo di taalibe di jàmbaar ci yoon bi di koo xam ni ku saf nit ñi daal di jàmbaar barki borom Tuubaa li may wax ni sama xol laa koy tibbee Modou Mbaye jàmbaar la jàmbaar dëgg la. gis ngeen dem nañ ci kafe gi xam nga ahlu kafe ga ca tali ba Grand Dakar ñëw nañ ndogu mhm. nañu ak kan Modou Mbaye 2STV Modou Mbaye FM Sénégal li tax nag ñu seet ko tey defe naa ne làmb moom taala ñoo xam ne war nañ ci mën a du mbër mi takk ngemb kese animateur bi tëgg kat bi woykat bi amateur bi supporter bi ñëpp a ci biir Modou maa ngi lay bëggee di la siyaar maa ngi lay bëggee bu baax a baax di la siyaare yow tamit di la nuyu di nuyu mbokku téléspectateurs yi di leen siyaare bu baax a baax di leen baal ak di leen baalu ak ci weer wi ñu nekk muy weeru koor di weer woo xamante ne weeru yërmande la di ñaan yàlla suñu borom lépp lu doomu aadama ñaan yàlla na ko suñu borom dajale def ko ay xéwal tuur ko ci askanu senegal tuur ko ci senegal jàmm sax fi jàmm am ci réew mi. amiin ak sax yàlla na loolu sax te yàgg léegi fi may ñëw ak yow Moodu dama lay laaj bi ma lay laaj dama koy laaj ñëpp ah gi ñaata fan la am tey. am nañ vingt cinq jours tey am nañ vingt cinq jours waaw wax dëgg yàlla maa ngi koy conté de maa ngi koy conté de yaa koor gi waaw maa ngi ci koor gi bu baax ñu ngi sant yàlla bu baax mett na nag Babacar jaamu yàlla xëdd tëdd julli ndogu laay def xëdd tëdd yeewu ndogu xanaa ay cinq heures laay yeewu dem café ga segg samay kafe ñëw Babacar man da ngay maar de mës naa war waru gàlle man daaw rek woor naa wooru gaale. <laughs> bàyyi li ma daaw. daaw yow ren ren est ce que wooru ma wooru gaale. non ren wooru wooru gaale mais daaw 2018. Ah. moo ma doon wooru gaale. sama kër benn xarit bu ma doon dem rek. Ah. falaay bu ma xëyee suba teel gàddu daaw daaw nag koor gi damaa yoroon saak au dos. daaw mu xëyee def ci sama lépp. génn nag moom kër gi. dem sama kër xarit ba toog fa ñu waxtaan. waxtaanee baa ñu jot ñu defar suñu añ sama xarit bi mbër la de. ay mbër la. xam na li ma koy wax mi ngi may xool maa ngi koy xool. moom mbër moom. suñu añee ba pare ñu jël si ma fa indi ma ci café gi. kenn jàppagu leen bi ngeen koy def boobu ba tey. nag daaw moom kenn jàppuñu te ren ma doon woowaat pour ñu ma ñëw ñu woor gaale ma ne ko non màgg naa damay woor. woor mu xas ma xuloog man ma ne ko bàyyiwaale ma. sa affaire la may jàngal xuraan. alxuraan waaw tane nañ ci. tane nañ ci parce que jàng nañ ko comme ni ko xaleb ndakaaru di jàngee. Hmm. parce que parce que ci ci jamono yooyu amaana suñu waajur yi seen xel nekkul woon trop ci dugal ñu ci daara ñu jàng alxuraan. Hmm. parce que boobu demeewul woon noonu moyens yi demeewul woon noonu. waaw xëy na waajur yi boobu éducation bi yar ñu ñoom ci seeni loxoy bopp lañ doon gën a bëgg hmm. moo leen doon gënal. waaw loolu la yàlla dogal moo tax mais nag n'empêche xam nañ suñu diine xam nañ liñ ci war a def. xam nañ farata yi xam nañ ni ñuy jaamoo yàlla xam nañ farata yi xam nañ sunna yi. waaw léegi su mu ñëwee weeru koor damay gis ne weeru koor yi dimbalante bi day gën a bëri Sénégal hmm. est-ce que loolu dañ ko war a def ci weeru koor kese wala bu ku jeex tamit dafa war a continuer dafa war a continuer warul yam kase ci weeru koor mais boo seetloo tamit yamul kase ci weeru koor parce que am na ci ñoo xamante ñi ngi def te kenn yëgu ko am na si ñoo xamante ñi ngi koy def ci suuf xam nga weeru koor gis nga ndogu yi nuy joxe ci mbedd mi ñu bëri dañoo jàpp ni pour néew di doole li la du pour néew di doole yi de man damay joxe ndogu xam naa li ma lay wax bu dog jotee am na ñoo xam ci ay quat 4 la ñuy nekk dog ci mbedd la leen di fekk mais nga jox leen mburu ñu dog kooku du néew di doole te laajoo ko un franc danga ko jox pour mu dem yow yàlla nga ciy ut ay man li ma lay wax ni P121 bi wala P8 bi suñu café gi fii ci bu en cosaan li ma lay wax ñi ciy dugg wala chauffeur 121 yi xam nañ li ma leen di wax bu dog jotee bu leen fu fekkee dañuy gaare taxaw ñu dugg ci biir servir képp ku nekk ci bus bi 34 bi dañ ko koy defal 31 bi dañ ko koy defal. ce qui veut dire nekkul lu ñuy def pour néew di doole mais képp ku dog fekk ci mbedd mi ñu bokk ko ak yow mais ma affaire bu rafet la macha allah. léegi nag damay ñëw ci côté làmb ji Modou mbay ci làmb loo ñu ci mën a wax Modou mbay ci làmb ci début beek yooyu. Modou mbay ci làmb c'était pas évident ma nekk ma bokk ci làmb parce que bugguma ko woon maanaam liggéey bi bugguma ko woon def. lu taxul football laa bëggoon. football laa doon pratique. da nga mës a def football boobu gënoon bëgg football wala. football dama ko def dëkk ci école bu ma koy defee. Caz Aldo Gentina. jàngee fa di jàng su ma jàngee ba ngoon ma dem entraînement dugg ci bis di dund professionnalisme nekk professionnel. <laughs> am sama néeg ci foofu ci école ba. samay équipement dañ ma koy fóotal à temps su ma nekkoon professionnel. Mhm. mais yàlla nanguwul sama tànk ma damm. Mhm. bi ma demee sama papa ñëw fekk ma seete woo ne alhamdulilah rabbil alamin ma ne ko ah mu ne dama sonn chaque jour nga rëq chaque jour nga blessé kaay toog noppalul noonu far yàlla ma bàyyi jàng ma bàyyi football bi loolu ma dugal ci làmb. kañ la père kañ nga njëkk a intégré sax làmb laay wax kañ ban jour nga njëkk ñëw ci làmb téye micro en tant que reporter. déet bi may njëkk ci làmb ci mai courante du ma woon reporter xale laa sam papa di jaay la journal bu ñuy wax arène sénégalaise mook suma papa Malembo ci combat Baboy ak Tafa Gueye. bi ko Tapha di njëkk a daanee mboot ma ca mboot ma boobu maa ngi ci main courante bi ci suuf Tapha Gueye Tyson 97 fii lañ jógee ñun ñëpp dem dugg stade te fayuñu dañoo burle woon waaw ñun ñëpp fii xale doon da ngay ranger saaku yi enceinte bi comme ni ko ñëpp di defee pour ñu mën la bàyyi nga seetaan des fois bu ñu la bàyyiwul nga seetaan nga teel a dugg dem kër gardien toog fa bu làmb ji commencé nga génn kër gardien policiers yi duñu tal xale yi waaw xam nga mag ñi lañ doon contrôler noonu ñu bëgg ñu bëgg làmb nekk ci waaw mais bis boobu daal Tapha Gueye Baboye mooy jour bi ma njëkk ci suuf. mais micro bi moom kañ ko njëkk a tamit. jàppatuma date bi jàppatuma ban combat mais ci période yi sam nekkee 2 yi ma nekkoon case école bi ma la waxoon di jàng su ma ñibbiwaan sama maag sama frère rek sam dañ doon ànd dem stade suñu ñëwee. noonu ñu toog ci kaw ñun téye si téye saag bi saag bi def fii li ma def matériel yi ba benn jour pa bi ñëwul Medoune Diouf ne ma kaay ci kaw la ne ma kaay Medoune bu TFM ma ne ko ah mu ne ma kaay ma ñëw mu ne ma am mbër mi nee ko loo indi ma ne lan moo man may footballeur mu ne ma yow kaay wax kii loo indi <laughs> dafa doy waar di ne ko lu ma koy laaj kii du dóor mu ne ma du la def dara ma ñëw ne ko loo wax mu ne ma dama koy gaañ ma ne ko nee na du la may dara mu ne ma mayuma ko dara manit Medoune ne ma nii la sama coach ma koy nuyu bu baax a baax moo mu njëkk a jox micro. ku baax la ne ma waxal macha allah ni ku baax la te ba léegi mi ngi may coaché waaw di ma teg ci yoon. man mi daf may coaché Medoune maa ngi koy ziar borom impro borom TFM. ñu ngi koy bu baax a baax. <laughs> léegi mbër boobu xam nga kan la. mbër bi ma njëkk a laaj déedéet xamatuma kan la. xamatuma ko parce que Babacar xam nga dessin dafa garaaw boobu xam boobu boobu noonu maa ngi koy def mais xalaatu man dinaa doon reporter xalaatu man dinaa nekk animateur déedéet dama ko defoon nii rek. waaw mais jour bi sama papa xamee ne dinaa nekk reporter mooy jour combat booy Niang Brise de Mer. Iba Mar Diop Iba Mar lu waraloon bi xam ko. dañoo toog combat bi di am paa bi di reporter seetaanuma làmb ji may déglu paa bi. ñaari xale yi arbitre bi sifflé na ñoom ñaari ñi ngi bëree jàppante nañu Boy Niang jàppante na ak Brise de Mer daan na ko daanagu ko déedéet lu mu koy def mbot na ko da koy caxabal déedéet caxabalu ko laa ilaha illallah daan na ko jël bu rëy attention à ce gosse c'est lui c'est le fils de De Gaulle je vous l'avais attention à lui <laughs> ma jàpp loolu bantamba am mardi ñu seetaan bantamba paa bi ñu ñuy teg loolu ci tele bi man may reporter en même temps que paa bi paa bi moom it seetaanul tele bi mu may may nopp ma reporté ba wax li mu wax yëpp paa ne waa baax na léegi mu bàyyi ma nag ma koy defal bantamba moom muy def reportage kase ma koy defal bantamba Balla Gaye Modou Lo bu njëkk maa def bantamba bi 2010 man ak laay balaay saar mi tëb barrière bi ñoo àndoon du ma ko fàtte mukk bari na ci ay komba ci sama micro la Mbaye Guèye waxee woon on tire pas sur un cadavre ambulant ci sama micro la woon maa tàllaloon micro bi Gris Bordeaux maa sànni woon micro ba ne ko maa mu ne ma xaaza coup au menton <laughs> ba na ay affaires yoo xamante ne sama papa daf ñu teel a may privilège ñu def ko pour teel a miin télévision waaw loolu lañ loolu lañ def daal loolu mooy jaar jaar seen TV tamit jaar nga fa group des médias waaw TV jaar naa fa jaar boo xamante ne damay def bantamba di def bantamba Bougane Gueye di ma seetaan di ma déglu di ma gis à chaque jour chaque fois léegi un jour rek mu woo sama papa ne ko damaa bëgg nga jox ma sa doom bi parce que dafa amoon combat bu ñu tuddee woon Zik FM Bougane ñëw mais nekk ci suuf Massamba mbayee nekkoon ci kaw ci sama micro bi ma taalaloon Massamba mbay bantamba ci la Massamba Mbaye annoncé déwén Zik FM day am télévision léegi. bi mu annoncé loolu ma wàcc ñëw bëgg introsé Bougane Bougane na ma eh booyee ah, man duma feeñ télé de booy bu ma filmer laa la wax ma ne ko ah mu ma waaw lu tax doo feeñ mu ne ma booy pour ma télé ñu dëpp bi ma dëppee xool ko mu déconcentré wu nekk ci la ma ni Bruno filmer ko waaye filmer ko kii mooy kan lu muy bañ na nëbbatu noonu xam naa foofu la ma bàyyee xel xam ni booy bi am na fit waaw osé na noonu ñu xëy mu woo paa bi ñu ànd man ak sam papa ñu dem fa mu ne sama papa damaa bëgg a daaneel xam sa mbër. te nii la ko waxee. doy na waar di damay daaneel émission jàmbur. Ah, moom moom bugaan bugaan na wax loolu. damaa bëgg a xam sa mbër te sa booy bii mën na ko. yokkaat ma fit. ne ma mën nga ko mën ko mën naa ko. may ma trois mois man maa ko waxoon. may ma trois mois buñ ko defee nga bàyyee dégg xam sa mbër. Mhm. ñuy def yàlla sunu borom diñ ci jàppale. nekkul woon suñu mëninu bopp nekkul loon lu ñu lu ñu jàng mais ndimbalu yàlla la ak deret ñu nekk ci di ci góor góorlu di ci góorgóorlu ba yàlla suñu borom def mbërgaale nekk première émission bu Sénégal yëpp bëggoon li ma lay wax ni Talla Ndiaye mi xam na si dara parce que man ak moom on a ñoo nekkoon ci ñoo bokkoon benn groupe ñoo daan ànd ay reportage yu bari mbërgaale dem ba daanaka ñu jox ñu suñu oto bopp ñoo am suñu oto bopp boo xamante ñoo ko moomoon saa yu ñu ko saa yu ñu bëggee génn du ñoo du amuñu yaay tuuti dëgg maa yaay tuuti madame kii madame Dramé dama daan ñëw ci moom ne ko defaral ma fiche mujj bi dama koy romb ne ko soxlaatuma sa fiche ndax grand bi teg na ma ci kaw jox jox na ma chauffeur jox na ma oto <laughs> heure bu ma neex tourné damaa amoon jour mercredi moom laa doon tourné mais dem naa ba chaque jour dama ko doon tourné parce que am naa sama oto bopp te bëggoon nañ liggéey bi mujj bi dañoo dem ba am ay bantamba yu dëgal mbër gaale yu bari en boîte noonu daal lañ fa jaaree mu nekkoon une famille kër gu rafet kër gu neexoon amoon ambiance sembiose bu ambiance bu doy waar ñu bokkoon lay bokk ba y avait que des jeunes te it ñu mayoon fit boobu ak sañ-sañ boobu ci suñu ay njiit la woon Bougane moom américain la Jupiter Diagne la même chose ah ñu nekkoon ay gannaaw yoo xam ay nante lañ amuñu patron ak employé déedéet ñëpp a yem ci kër gi am na benn jour ma xaw fa am benn jafe-jafe sax bugaan na ma défendre ci kanamu waaja te kooku patron la woon ci kër ga mu ne ko hey kii du fi employé rax la fi xam nga yooyu ay gestes la yuy wane ni kii daf la téye bi ma demee ba war a bàyyi ma message ko woo ko ne ko grand damaa bëgg a dem jàppale ci sam papa mu ne ma bindal ma lettre rek xamal ma ko ma jox ko te bi ma koy jox metti woon na ci man parce que sama nit la sama grand la jina ma teranga mais n'empêche jóge naa fa mais ñi ngi séq ay teraanga ba tey wax wax dëgg yàlla. mais Père Bécaye la jukki yu xam ne yow mii léegi dépassé nga fi muy bul 2STV wala. déedéet déedéet tamit dañoo dem <laughs> ñu ñëw benn jour stade lépp ay histoire la de dañoo ñëw stade waa seen TV ñëwuñu pour def si grand combat parce que boobu sama papa.